Sénégal bu ñu la waxee ne la politique mun na ko taal. Mm-hmm. Mm-hmm. am na man de naa ni leneen la wax ne la politique mun naa taal. Sénégal waxu la dëgg parce que politique boo ci nekkee ki ngay nekkal du la wax ne la maa ngi lay jiitu mbaa maa ngi sa wet daf naa la maa ngi sa gannaaw. Mm-hmm. ki nekk sa gannaaw yow mi ci kanam boo wëlbati koo daw moo lay jëkk fu ñu jël donc xeex moom rente ci politique mënul am Sénégal beneen bi ci topp am nañu chance lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci wàllu politique am nañu accès ci tele yi am nañu accès ci ci ci ci ñu ngi ñu ngi Sénégal ba mu nekkee Sénégal bi léegi day organiser régulièrement ces élections mhm. ku kontaanul boo demee voté nga contre ku kontaan boo demee voté nga voté pour mhm. donc ñun ñu ngi àtte suñu bopp ci doxalinu suñu démocratie mhm. donc politique du taal réew mi par contre diine ak li ñu gis ci jamono jii nii mun na taal réew mi parce que ñoom ci seen biir ñooñu di wax di nga ci gis ñu nga xamante ne dañuy yegg dañoo yéeg yéeg yéeg ba nga xamante ne dañu gëm ne ñoom par exemple kenn ci ñoom takk bomb dee reyaale ay nit loolu ndam la. Mhm. xam nga ki dem ba nga xamante ne li muy def dee la ci wut. kooku jaaxal na mu amul fenn foo ko mën a tiital amul fenn foo ko mën a xoxtal mhm. te foofu ñu yegg ñun ñi nga xamante ne ay taalibe lañu judd ci tarixa fekk suñuy yaay suñuy papa suñuy maam nekk ci tarixa yooyu noonu ñoom fa ñu yegg ak fit wa ñu am ci li ñuy def ñun am nañ fitu ko room mais nag loi moom moo dox suñu diggante euh, constitution constitution wax ni ku nekk li nga gëm nekk ci kenn du la ci fekk si def la lu la métti am na ay jamono yoo xamante ne ay églises yu bees dañ fi amoon mu sonal ay ñaan ñenn nit man bi ñu ma woowee laaj ma ma ne la ah, man constitution moo ma ci jaaxal parce que même bu fekkente ne ay églises yoo xamante ne ay étrangers ñoom ñoo ko fi andi mooy yi ma lay wax nii. nga xamante ne dañuy organiser ay dimanche dugg ci biir quartier ak affaire même bu fekkente ne ay étrangers ñoo ko fi andi c'est-à-dire que ñun christianisme bi ñu xamoon loolu bokku ci. ñoom ñu ñëw dugg si ci réew mi. am droit toog ci réew mi am droit liggéey ci réew mi. Mm-hmm. donc dañuy am droit ñoom ñu jaamu seen yàlla ci réew mi. constitution def leen di may ñu def loolu. léegi nag bu fekkente ne population bi dañu bëgg a jóg. dem fekki leen fa ñu ne ñu ne dañ koy taal dañ koy toj dañ leen di dóor su boobaa yoon day dal ci kaw population bi. ñoom liggéey bi ñuy liggéey ci seen wàllu ngëm mhm. nañu ko liggéey mhm. ci nga xamante ne du sonal kenn du ñu lor kenn ñun aussi ni nga xamante ne noonu la ñu gisee suñu ngëm ñu nekk ci mhm. yar ci suñuy doom man bu may dem Tiwaawan ma yóbbu samay xale yow booy dem Tuubaa nga yóbbu say xale bu ñu màggee ci diggante boobu ëllëg ak si biir lu leen waaye munti wax aussi mënu leen jële ci tarxa ngi base